voilà mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax amaan nañu mbégte lool ñëw fii nga xam ne moom moo ci dëkk bu sell bi dëkk bu Seydil Hadji Malick Sy xam ngeen ni tey moom mooy premier jour ouverture burdu bi gis ngeen mbooloo mu takkoo takku bàyyeekoo ci dëkk yi fasantikoy Dakar Thiès Mbour ak feneen ak feneen ngir ñëw fi nga xam ne moom mooy Tivaouane ngir fekkee li nga xam ne moom mooy ouverture bi ki ñu tawal nag euh, du ñu leen ko présenté plutôt moom mooy présenté boppam. à travers gis ngeen ko ci télévision yi lam fay def euh, ci euh, jàngale mbindum Seydil Hadji Malick Sy sang bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi leen di fay di leen nuyu yéen bu baax a baax. di leen ñaanal yiw di leen ndokkeel ci weeru tedd wi lépp loo xamante ni sunu borom digge na ko ci yonent sallallahu alayhi wa sallam digge ko ci yàlla na leen ko yàlla defal defal ñu ko ñun ñëpp bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alors euh, ñu ngi nga nekk koo xamante ni da ngay bay sa waar ci wàllu kër gi ñu ràññee la ci lool ci daara ji ba ci euh, waxtaan yu am am solo ci yeddaange bi ci lépp tey mu nekk première euh, ouverture yu Bourd xel yëpp Tiwaawan lay dem rawatina li nga xamante ni moom ngeen di baaxoo di ko def tey lan nga yëg. waa li ñu yëg du dara lu dul mbégte rek ndax wax dëgg yàlla am na loo xamante ni bu la ci yàlla boolee da ngay da ngay da ciy bég bu baax a baax ndax da ngay xam ni. du ñëpp la yàlla may kartan boole leen ci chance boole leen ci su la yàlla boolee ci ñi ko fekkee boole la ci ñi ko tal boole la ci ñi toog déglu ko boole boole la ci ñi def yiw bi wax dëgg yàlla loolu li ngay yëg ci sa xol yow rek yaa ko xam damay wax toujours ni rek ci Tiwaawan moom euh, képp koo xamante ni soppeeb Sayyiduna Muhammad nga wala ngay njabootu Cheikh Seydil Hadj Mar radiyallahu anhu bu weer wi teroo amul leneen looy dégg mbaa nga di ko yëg ci sa xol lu dul tànk déggoo ñu yëkkati burdu sa xol mën a féex nga dundaat. nga nga nga chargé waat ndax it wax dëgg yàlla sa téléphone bi bu bu bu vidé da nga koy chargé mais ñun moom li ñuy chargé mooy euh, euh, chargeur ëttu chargeur baa ngi nii ci suñu ginnaaw fii la ñuy chargé woo ci ëttu Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu waaye dafa bokk ci li ñuy alimenté mooy burdu bi nga xam ne soo ko déggee sa xel yëpp day dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lépp dañ ko jagleel sayyiduna Muhammad ñi koy jàngit nekk ñoo xamante ni kenn ku nekk boo déggee seen baat sa xel dina delluwaat ci ki tëdd Madinatul Munawwara loolu mënuñu ko fay Cheikh Seydil Hadji Malick moo tax mbégte rek la ñuy yëg bu ñu ko déggee. ngir xam mhm. euh, nga muy xale yi xoolaat façon bi ñuy jikko yi valeur yi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi mhm. mu xaw a rafle li nga xam ne moom mooy société waa xam nga ñun ñun dañu am ñun suñu société bii ñu nekk muy société wu Sénégal amuñu maanaam problème yi ñu bari am ñun amuñu ko mais problème yi gën a ñàkk fayda ñun moo ñuy sonal mooy tey yàlla dimbali nu ñu am kilifa yoo xam ni dinañ ñu wan fi ñu mën a teg suñu tànk mais ñun problème bu sew bi ñu am mooy teg fa suñu tànk loolu mooy suñu problème waaw xam maanaam li tax mooy am nañu ay repères am nañu ay références mais référé wuñu ci ñoom boo gisee kilifa yi d'accord ci ñu indiwaat maanaam ñu indi ci temuren bi doxalin bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon doxalee topp sunnaam ak njàngale yonent bi c'était juste pour ñi nga xamante ni daw nanu songu kër gi wala daw nanu songu kër yi diine yi ñu xam ni li ñuy songu bu fekkente ni yuuxu la ak fittasu ak jaayu jaratu ko li ñu ci soxla mooy mu am jeexital ci sa xol te bu amee jeexital ci sa xol am jeexital ci say cër moo léegi bu ñu la jàngalee dundinu yonent bi nga ni dama bëgg yonent yàlla Muhammad moo tax ma dem gàmmu ji Tiwaawan dama bëgg yonent yàlla Muhammad moo tax bu ma déggee ñu koy way sama xol day sedd ñu ne la léegi yonent boobu nga bëgg ba boo ko déggee sa xol yonent boobu mësul fen yow war ngaa rusa fen bu fekkente ne cofeel gi ngay woote ci yonent bi dëgg la maanaam ñun la yonent boobu nga bëgg mësul yàq deru yow war ngaa rusa yàq deru nit bu fekkee sa cofeel ci yonent bi dëgg la yonent bi nga bëgg mësul jël alal ju mu moomul yow war ngaa rusa jël alal joo moomul bi nga bëgg mësul nekk rambaaj mësul nekk jaxasekat mësul mësul maanaam jikko yooyu ñu la jàngal ci yonent yàlla Muhammad yow bu fekkente ni cofeel gi ngay woote ci yonent bi dëgg la yow jikko yooyu dafa war a rogalaat ci yow jikko yooyu dafa war a jeexital ci yow da ngaa war a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy royaat jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax kilifa yi indi boobu tem ngir ndaw ñi nga xamante ni ak mag ñi nga xamante ni sax ñoo ngi xeeñcu jeexitalu xadara maliki bi mm. ñu xam ne amuñu benn yitte mm. bu dul topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que nit it boo koy bëgg bëggeel gi day am fu mu jeexitalee damay wax ne ñi bëgg nit yi àdduna yi maanaam ki bëgg waali ki bëgg Viviane ki bëgg keneen da ngay gis mu koy nduru ndurulu di waali waalilu di doxe comme moom di sole comme moom léegi yow nga ni da ngaa bëgg yont yàlla Muhammad te royoo benn jikkoom damaa bëgg sëñ Babacar si ñun la kër Babacar musul wax lu dul dëgg yow nga ni taalibi sëñ Babacar laa te fa nga dëkk ku fu ñu déggee wax ju dul dëgg yow la sëñ Babacar musul jël alali jàmbur nga ni da koo bëgg te foo toll yaa ngi tiriyande sëñ Babacar si nitu yàlla la boo xam ni musul musul fecc kóllëre yow nga ni da ngaa bëgg sëñ kër moom rek nga sopp te kóllëre goo fas fecc ko mais du dëgg mm. wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin wa taabian sunnatel muxtaari soo ko defee taxtani mi loolu la alaaj malik bind mm. te Maodo dafa waxaat feneen ni mandarga yi ñuy toppe roy yonent bi ak sunnaam ak bëgg ko Maodo nee na mooy isticmaalu sunnatihi waaye min jumlatil umami nga roy yonent bi waaye ci mboolee mbir yi nga roy ci yonent yàlla Muhammad moo tax ma ni la sew-sew bi ñu am ñun mooy li gën a li gën a tumuranke ñun am nañ ko mooy mag ñu baax mag ñu yiw loolu am nañ ko mag ñu mën a jël exemple am nañ ko mag ñu ñu mën a tegtal fu ñu jaar am nañ ko mm-hmm. mais lu tax ñu lànk bañ a topp mag ñooñu lu tax li mag ñuy tegtale teguñu ci suñu tànk te loola moo fi nekkoon damay wax ni lu dul dëgg jamono Cheikh El Hadji Malick ba léegi ku la ko fi indi ni la dëgg la waxul dëgg du dëgg li fi Maodo bàyyi bu dul dëgg dara du dëgg li fi Maodo bàyyi bu wérul dara wérul li fi Maodo bàyyi bu dul yoon dara du yoon kon nañu teguwaat foofu mag ñi nag bëgguñu teg foofu moo tax njàngale Cheikh El ci tëralinu yonent bi ñu indil ñu ko xëy na bu ñu ko jàppantee kenn ku nekk partagé ko ci digganteem ak moroomam dana ñu permettre ñu tegaat suñu tànk ci sunna sayyiduna Muhammad alors euh, fi yal na yàlla yokku leeram tax ci barkeem mu xamal ne ne euh, recommandation yi mu bëgg pèlerin yi euh, tënku ci ngir mën ñëw fii bokk na ci ormo bi mhm. barab yi nga xamante ni fa la ñu ñëw ci waa xam nga dafa am lu lu ñu bari ñuy ziar di def te xamuñu ni taxul ziar nangu gis nga ñëw ba ci réew du sëñ Babacar nga ñuuxu ko hmm. jël sa téléphone photo dugg naa ca réew du ba sës naa ca tafu naa ca barrière ba nangam ak nangam taxul sa ziar nangu déedéet contraire bi nitu yàlla soo koy ziar loo ko gën a dànd loo ko gën a dànd di ko gën a jox ma yàlla di gën a faj sa aajo mais ñun tant que ñooxuwuñu xa xabru bi wala ñooxuwuñu rawdu bi pour ñun suñu ñaan du nangu te sëñ Babacar bokkul ci nitu yàlla yooyu nga xamante ni da ngay da da ngay da ngay ñëw ba ci moom di wax koo xam ne boo ko jubee quarante kilomètres bu dee bu dee oto ba dugg dugg sëñ Babacar mi ngi dégg riiru moteur bi bu dee fas nga war sëñ Babacar mi ngi dégg tànki fas wi bu dee da dox sëñ Abdou nee na néeg ba nga kër ga nga nekk di sangu tokk ndox yiy dal ci sa yaram di wadd ci suuf day fas yéene ziyaare sëñ Babacar tonk dox yooyu mi ngi tànkal sëñ Babacar fi mu tëdd mais kooku boo ñëwee jarul ñuuxu ci réew bi looloo tax Alaaji Abdu ni booy ziyaar sëñ kër bu ko ñuuxu Alaaji Abdu nee na toog ci wetu sëñ Babacar di wax sax ñàkk teggin la mu ne koo xam ne booy départ mu yëg boo ñëwee ba ci kanamam looy waxati Alaaji Abdu nee na sëñ Babacar jub ko rek moom xam na li la yëkkati xam na sa aajo nga dem doxi say soxla. d'accord bëggoon nañu xam itam. Mhm. melokaanu taaliba cheikh. Mhm. ban melokaan la taaliba cheikh war a euh, war a am. waa xam nga taaliba cheikh. Mhm. léegi Sénégal dañ ko def phénomène phénomène yére ak koppati hmm. waaw maanaam léegi bu sa koppati rafetee sa yére rafet loolu mooy maanaam genre genre boobu lañ ko def hmm. donte ne nag amul taalibe Cheikhu Tidiane booy gis xar kanamam di lëndëm loolu amul kenn mënul werd salaatul fatih sa xar kanam di lëndëm hmm. même boo jëlagul werd mais bëgg gi nga bëgg Cheikhu Tidiane di lu salaatul fatih ak jëwhëra loolu mooy def ci sa yaram wi leer loolu mooy daw ci sa sidit yi mooy daw ci sa ven yi loolu mooy tax sa yaram di nay damay wax ni taalibe cheikh bi li muy diwoo ak ki dul taalibe cheikh li muy diwoo buñ dee même pied buñ dee benn diw ni taalibe cheikh bi di leere moom du ko leeree donte du waxuma xeesal de diw yi ñuy diw ci yaram maanaam bi taalibe cheikh bi di diwoo yow nga dem jënd ko yaakaar ni ci diw gi la nga di ko diwoo mën nga koo diwoo fukki at doo leer li koy leeral moom mooy aynu rahmati rabbaniyati yaqutati mutahaqiqati haitati bi markadil fuhumi wal maani loolu moo leen di leeral loolu mënoo ci dara sëñ Babacar Si moo fala tara ahadan mm. min ahlihi abadan illa wa shimahum Cheikh Al Khalifa ne doo ci gis kenn te xar kanam ba belliwul mm-hmm. maanaam belli moom waa kër Cheikh la ko yàlla jagleel mais taxul nag ñu ni loolu mooy ta mooy mooy mooy taaliba Cheikh Tidiane déedéet mm-hmm. ki ki ñuy tuddee taaliba Cheikh Tidiane mooy ki dem jëli werd wi mm-hmm. di ko def ni ñu ko ko sante boole ko ak charte yi foofu tam am na benn sew-sew léegi-léegi réew mi da ngay dégg ku la man de bëggoon naa jël werd mais daal xam nga bon bu dee bu dee nante yi li tam ñu koy wax voilà bu dee nante yi dañ naan xam nga rek affaire yi xam nga bàyyeegu ko quoi maanaam ñu ngi ci xale yi ñu ngi jël ci xale yi nangam ak nangam bu dee xale bu jigéen bi mi ngi farantu nangam ak nangam ama ñooñu dañ naan a mënaguñoo jël tarixa bi parce que jubaguñu la ñuy wax sëñ Mansour si borom daara ji moo wax ni yow mi gën a dëng ci àdduna yow la Cheikh Tidiane soxla maanaam kii yaakaar ni addunaam yàqu na mënatul a baax mënatul a jub kooku la cheikh soxla kookoy jël tariqa cheikhu Tidiane weer du ko du mat weer nga gis ko naan est ce que kii laa xamoon kooku la tariqa bi soxla moom la sëñ Mansour daan wax nii yëre yi ñu gome passé ko riime ko ci armoire bi wutul dara ci fóot mi fóot lu tilim lañ koy def te cheikh day fóot kon ki tilim la soxla âge bi la julli waree nga majeur soo âge boobu la la jël weer de waree weer de dofloowul kenn sànkul kenn or ka nag dalay yokk parce que tariqa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane moo quartier ñoo yam mbagg la ñuy rawantee ku la gën a maaj njëkk laa maaj dàq laa maaj moo la ëpp garaat ci mbagg la ñuy rawante ok ok waaye yàlla na yàlla na fay leen yiw yéen it liggéey bi ngeen di def am na solo mm-hmm. euh, lenn rek lañ leen ci ñaan mooy lu rafet génne leen waaye lu ñaaw jarul génne ndax benn publication bu ñaaw bu nit publier mm-hmm. ku ca am accès mm-hmm. bàkkaar bu mu ca am yow mi ko publier am nga ca bakkaar bu ni toll ndax dangay jot sa pourcentage damay wax ne internet bi ñu bëri ñu ngi ciy jëlee ay bàkkaar te bàyyi wuñ ci xel même lu bon li nga gis nga aimé ko aimé rek da nga ciy am bàkkaar nga vu ko da nga am bakkaar maanaam nga commentaire ko da nga ciy am bàkkaar te gars du ñu bàyyi loolu xel moo tax yéen ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaan it lu rafet ñu wane waaye lu ngeen gis lu nduroog safaan yow da ngay ñaan yàlla allahumma ya man azhara al jamila wa satara al qabiha bis ne nga ñaan ko yàlla yàlla feeñalal ma sama yu rafet nëbbal ma sama yu ñaaw yow lu ñaaw loo gisal nit nëbbal ko ko lu rafet loo gis feeñalal yal na yàlla may leen ndam yal na yàlla defal leen ci réussite ñu ngi leen ciy ndokkeel yal nañu may ñu fekk ko at yu bari bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye seen lam bi tàng lool